salaamaaleykum Oustaz. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi lay ndokkeel di la baalu àq jëf. ñu bëggoon xam nag euh, tey jotaay bi lan moo ko waral. ah jotaay bi de li ko waral mooy dajeeg suñuy xarit suñuy am di jàmm ñoo xam ne maak ñoom moom ñoo bokk li ñuy def di def bu ñu tasee ñu jàllaleeg ñoom benn message boo xam ne danañ jàpp ne jamono ji ñu koy joxe jamono soxla na ko. Euh, bu ko defee buñ tam xaritee at mu jot ba ci ëllëg sa ñu daje fi ñu tànnal leen benn tomb xaaj ko ñaari xaaj benn bi ñu jox ko suñu xarit bi doon wax léegi muy al oustaz Ahmed Dame Ndiaye bu ñu demee ba ngoon benn bi ñu féetiwoo ko loolu mooy il lay daje bii mbooleem nag koo xam ne kii sunu xarit la ak am di jàmm ci réew mi si lii ak fu mën a nekk ñoom ñëppay daje ñu def waxtaan wi loolu mooy il lay daje bi. Hmm. ngëneelu bisu tey bi ndax mën nga ci dellu si. waaw ngëneelu bisu tey bi mën nañ ci dellu si ndax eh, day bis boo xam ne bii suñu borom daf cee defaloon waa àdduna soxlaay wax victoire bu rëy ndax ki gënoon a jubati ci àdduna si nga xam ne jeexantali politique ba léegi mu ngi des ci penc mi muy na kooku ci bis naka tey bii la ko yàlla alagoon kon loolu rek doy na sëkk bi Yonent bi sallallahu alayhi wa feeñee jamono. fekk ay mbokkam di ko woor mu ne leen gënuñoo leen ñoo gënu leen ñoo bokk ak moom comme su ngeen ko wooree danañ ko woor mu doon ko woor di digal saa bi ñu ànd di ko woor loolu nga ne la lu rëy te bis bi yonent bi wax ne koo xam ne woor nga ko su sunu borom tabaaraka taala dana jéggal sa bakkaari at mi nga xam ne moom nga weesu woon kon nag loolu am na solo lool ci ay ngëneelu bés bi. beneen bi tam moo nekk nii euh, dañu amoon ay rumeur nii euh, bokk nga ci ñi des mi na loolu noo ko dundee. <laughs> rumeur bokkoon nga ci ñi des Mina de xam naa ko seetaan li dana xam ne desuma Mina ndax awma sens bu ma amoon sens damay bokk ca ña fa des. loolu chance la. waaw maanaam ñàkk faa des mooy ñàkk sens am sens bi mooy desoon fa dana métti nag ci ñi ma won gi bàyyi woon ginnaaw dana métti xëy na sunu borom daa xam ne peut-être message bi am na lu ma war na mottali moo tax booluma ci ña fa des mu bàyyi ma ma ñëwaat. tabarakallahu waaye daal ña fa des ñoom am nañu chance ñun ñu bis ñoo amul chance. chance ba ña fa des mooy lan. chance ña fa des mooy ku jógee Arafa ñu fanaan Musdalifa jëm jëm reysaan yi dese woo benn bàkkaar benn bàkkaar dese woo ko kon bu la yàlla moomee foofu rek yaa ngay continuer di la bay kaw ba ca kanamam loolu la leen yàlla may ñoom moo tax ñoom am nañ chance ñun nag amaguñu chance boobu. waaw yàlla bàyyi nu ñibbisi xëy na bëggoon nañu dellu si xëy na peut-être liggéey bi ñu doon def. Euh, loolu mooy mooy yëf yi moo tax may wax ni incha allah bu ñu ñëwee ba ci ngoon war na am benn déclaration bu ñu def boo xam ñëw tege ci kaw loolu allah. beneen bu mujj bi mooy at mu bees bi yéen dénkaane nga ci dénk suñu euh, at mu bees bu ñëwee liñ ciy dénk jullit mooy mu xool ni mu dundee at mi weesu fexe ba at mii di ñëw bu mu dundee noonu mu seet ba at mi mu weesu ndax moom daa baaxoon na gën a baax ndax daa sàgganoon na gën a farlu. ndax daf daan wax lu dul dëgg na ko bàyyi ndax daan nayoon na ko bàyyi bu ko defee at mii di ñëw ca lay gëree danaay faral di wax lu bëree bari benn missaalu américain yi dañuy wax ne boo dugalee sa loxo ci biiru kees bàyyi ko fa fukki weer ak ñaar génnewaat sa lox bi gënu fee xees gënu fee ñuul téyewoo dara boo ko fa dugalaatee amoo xel loolu dénkaan lañ amoon yoo xam ne dinañ ko ci def incha allah wa shukran jërëjëf jërëjëf